mbokk yi entreprise sénégalaise de bâtiment wax dëgg yàlla seen xam-xam dafa màcc ci lépp loo xam ne bâtiment la rawana ci plan boo xam ne da nga bëgg tabax jàkka wala école wala immeuble wala loo munti tabax chantier daal yàlla may na leen ci moo tax de réalisation de tout travaux bâtiment ñoom dañ cee xarañ ñoom nag ña nga ca Anne Maris ca 33 832 85 entreprise sénégalaise de bâtiment mooy entreprise bi nga xam ne ay nit ñu xarañ ay ouvrier yu xarañ te mën nañu def di ko teg ci yoon mbokk yi egsi ngeen fi nga xam ne moom mooy todo ESGD nekk fii ci HLM Grand Yoff di bërëb boo xam ne lépp loo xam ne day taaral kër rek ñoom mu ci taxaw xoolal ma chambre à coucher yu taaru yi xoolal ma salon yu taaru yi xoolal ma tableau yu taaru yi nga xam ne boo ñëwee fii ci todo ESGD ci HLM Grand Yoff. fexe leen ba fexe leen ba bu xam ni benn patron rek la am mooy le peuple sénégalais. man la man la man la Cheikh Niass dama ne li ma li ma li ma li ma li sama papa doon bañ laay bañ ba tey am na loo xam ne du ma ko nangu kenn du ñu teg loo xam ne ñun yaruwuñu ko loo xam ne ñun xam nañ ne lii ñu def nii injustice la daa dee coupé signal Walfadjri nangu licence bi dama ne Macky Sall 48 heures laa ko may dégg nga 48 heures laa ko may su passé 48 heures te indiwul li nga xam ne mooy signal bi delloowul licence bi. danaa ko déloger ci palais bi danaa ko fekk ci palais bi déloger ko man maa ko wax danaa ko fekk ci palais bi déloger ko parce que injustice bi muy bañ bi muy bëgg imposer ñun ci boppam duñu ko nangu wal fajiri du nekk di négocier ak kenn lii nga xam ne moom la ñuy def tey moom la ñu téye ànd ak ceeg askan wi askan wi moo ñuy fekk si fii kon lu ñuy def dañ ci ànd ak askan wi dama ne président Macky Sall je te donne 48 heures si tu ne règles pas ce problème dana la fekk ci palais bi délogé la et nekk le président de la République du Sénégal loolu laa bëgg ngeen xam ko loolu ci loolu la ñuy taxaw ndax loolu laa fekk sama waajur def ko moom laa fekk employé ànd ci loolu ci li nga xam ne moom mooy doxal éthique ak déontologie du yoon ñu ñuy coupé da dul yoon da dul yoon ñu ñuy coupé tey ñu ñuy coupé ëllëg moo taxit signal bi tey bu fekkee ne 48 heures laa ko may bu ko indiwul moom ci poppam danaa ko fekk ci palais bi délogé ko allo waaw tonton Atepa ah Macky Sall lañ koy seetaan waaw message la hmm. kañ suba ci guddi dimanche ah, su ci guddi waaw waaw man waaw dinaa ñëw waaw naa ànd ak ñaar wala ñett rek waaw waaw waaw waaw kon mbokk yi li ma doon wax am na effet ña ngay commencé di waxtaan xam nañ ne li ma wax dama koy def léegi maa ngi dem nii tonton Atepa moo ma woo nee naa ñëw wuy si ko am na loo xam ne daf ko bëgg waxtaan ak man li muy waxtaan ak man nag su ma fa jógee dara dara du leen ci ump Atepa moo ma woo maa ngi ñëwaat léegi ndax discours bi faw ñu eggali ko te fa ñu nekkoon fa ñu nekk ba tey dégg nga du ñu ko saase sala salaamaaley salaamaaleykum mbokk yi man la euh, Cheikh Niass waaw euh, de doon xamal ne euh, démb dem nañu tonton Atepa moo ma woo te tonton Atepa dama koy xoolee bëtu kilifa boo xam ne tey. Euh, mënumaa woo euh, mënumaa ñaan dara ma ma koy bañ mujj nañu dem toog gis ak Macky Sall waxtaan nañu recevoir nañu may remercier avant tout tata Marème Faye Sall ndax euh, jigéen la bu baax boo xam ne teewaayam ci mbir mi amoon na solo waaw waxtaan nañu ba mu ne moom yëguloon ne dañoo retire licence bi waaye coupure bi moom yëgoon na ko parce que bëggul ñuy génne ay images yoo xam ne day yee ay fitna ci réew mi te loolu je pense que c'est son plus grand droit nañ ko ko nangul moom président Macky Sall parce que moom mooy président de tous les Sénégalais waaye euh, euh, bi bi ñu ko waxee ne ko dañoo nangu licence bi nee na moom moom yëgu ko woon sax si suñu si sama kanam nii si sama kanam nii la. Euh, dafa am kuti sóoli yaaram kàlla seede na ko sama kanam nii ci la wootee sax Babacar Diagne ne ko dama bëgg signal bi vingt ngeen delloo ko ak euh, Bokar Thiam wax na leen ko sama kanam donc euh, euh, loolu la fa waxtaanee woon ma wax na ko ne ne ko ne ko ñun ay journalistes yu engagé ñoo fa nekk ay ay saaba ñoo fa nekk ñoo xam ne dañuy taxaw pour xeex dégg nga Euh, li nga xam ne mooy injustice ci seen ligne éditoriale euh, euh, professionnellement mënuñu leen gàggati ci li nga xam ne moom la ñu jàng waaye bu soobee yàlla ñàkk ñàkk waxtaan la woon rek te bi ñu waxtaanee trouver nañu terrain d'entente boo xam ne kenn du gaañ sa moroom ñoom dootuñu dal ci suñu kaw noonu waaye ñun tamit dinañu jéem a xool nu ñuy kiyee kii ba kii mun a kii tante tata fay nag vraiment servir nañu fa euh, mbaxalu saalum ndox dimanche la woon dégg nga xam naa ne danaan ay saalum saalum nañu defal ñu fa zi ak taaya waxtaan nañ fa sax lu xaw a yàgg ci mbiru bi leen lu bokkul ak affaire télé gi yooyu ba sax mbokk feeñ ci ci sama côté euh, euh, kii kii jànq boo xam ne da doon liggéey ci man euh, cousine am ak yaayam ñoo bokk foofu mbokk feeñ ci diggante jànq bi liggéey sama kër ak moom ci côté kii waaw moo taxaw moo xam ne nag comme que yéen askan wi télé bi dégg seen télé la mënu moon dem foofu rek ñëwaat nii rek mu nekk loo xam ne du ma leen rendre compte waaye dégg nga euh, ñàkk waxtaan la woon réeroo la moom yëgu ko woon sax gis nga bi ma ko waxee ne ko licence dañ ko dafa tiit dafa tiit mu ne yéen ma ko yëgal mu ne ma yéen ma ko yëgal man yëgu moon loolu waaw kon mooy wane ne des fois information yi du egg ci ñi mu war a egg moo tax bon bi mu ñu woowee euh, ñu ñu ñu ñu ah, ma ànd ak tonton euh, Atepa euh, kii dem foofu ak kii Oustaz Assane mu nekk seede pour lépp loo xam ne kii na bi ñuy dem sax wallaay asim maa ngi mu ngi naan marem jox leen paas ma ne ko duma ko laal wallaay mu ngi naan ma yaa déedéet da xam paasu lal la ma ne ko déedéet duma ko laal xam <laughs> nga forcé ñu ko forcé ñu ko ba mujj ko eh, ñu xaale sama poos moom teraanga kenn du ko delloo loolu daal nañu fa jëlee ci waxtaan boo xam ne eh, yëgul woon sax li xew waaw moo woon ma ne naa ñëw wax leen ko dégg nga eh, te ngeen xam ne wal yi moom bu soobee yàlla ci moom li mu wax nee na nag moom bokk yëgoon na coupure bi waaw yëgoon na coupure bi de nee na yëgoon na ko waaye nangu licence bi moom yëg ko woon maa ko ko wax daf ko ma ko wax rek mu tiit ne loolu kañ la rek mu woo ci tàng tàng bi Babacar Diagne ñaw woo ko ci tàng tàng bi waaw waaw comme que moom man maa waxoon dama koy délogé moom nag moom mu mujj délogé fi ma nekk woo ma ma ñëw fekk si ko moo tax. Euh, damay xoolaat man defe naa damay ànd ak xadar goo xam ne su may njëkk wax damay émotif waaw bi may dagg keroog sama carte dant bi tamit dégg dénga bi ma koy dagg teyuma ko woon euh, euh, après laay soo ko xam ne euh, yoon mën na ma cee topp bi may wax barki démb tamit ne 48 laa ko may mu kii bu delloowul signal bi ma délogé ko pale bi fa yàlla defee tonton Atepa woo ma délogé ma sama kër ma dem fekki Macky fi mu logé ñu logé foofu waxtaan fa waaye moo tax waaw may bañ nag ngeen yaakaar ne damaa teggi yoon bi sama baay tracé woon waaw waaw loolu rek la woon loolu rek lañu fa def nag waxtaan bi sax matul quinze minutes xanaa mbaxalu saalum bi mu fa ca lekk ak jus de bissap bi tata fay def wax dëgg yàlla euh, paas bi ñu forcé ba jox ñu ko noonu sax dañu ko mujj ñuuxal ma ne nag xaaral loolu comme que bi may dem damaa menacé woon fii ci kaw menace ba am na njëriñ ndax mujj nañ maa woo ba ñu waxtaan lu bëri yëg ko woon dégg nga kon téléspectateur seen télé gi noonu tàkkaat na léegi nag ñu xool rek bu ñu koy defati ñu xool rek waxtaane ko que euh, rédaction bi ndax man am na yoo xam ne duma ko fekke waaw ah, baax na man loolu rek la woon ma ne xaaral ma ñëw kii ngi fanaan ak jàmm yendoo ak jàmm bu soobee yàlla wal fajiri moom fi mu nekkoon yaakaaruma ne ok baax na maa ngi maa dem entreprise sénégalaise de bâtiment wax dëgg yàlla seen xam-xam dafa màcc ci lépp loo xam ne bâtiment la rawatina ci plan boo xam ne da nga bëgg tabax jàkka war a école war a immeuble war a loo munti tabax chantier daal yàlla may na leen ci moo tax réalisation de tout travaux bâtiment ñoom dañ cee xarañ ñoom nag ña nga ca Anmaris ca 33 832 85 85 entreprise sénégalaise de bâtiment mooy entreprise bi nga xam ne ay nit ñu xarañ ay ouvrier yu xarañ te mu ñuy def di ko teg ci yoon mbokk yi egsi ngeen nga xam ne moom mooy Todo ESGD nekk fii ci HLM Grand Yoff di bërëb boo xam ne lépp loo xam ne day taaral kër rek ñoom mu ci taxaw xoolal ma chambre à coucher yu taaru yi xoolal ma salon yu taar yi xoolal ma tableau yu taar yi nga xam ne boo ñëwee fii ci Todo ESGD ci HLM Grand